sarax rek ko koy feeñal waaw fi mu ne àdduna jamono ji dëgg la ñu ngi ci diggante chiffre sept ak huit waaye lépp ci chiffre neuf lay mujj man damay dox man wàllum chiffre fi mu ne tey ka nekk Tamba bu toogoon na ma jox naa la chiffre nangam rek lu ci bari ci dundam mën naa ko ko wax sëñ maanaam nit ki ñaata ñaata yoon la war a seetlu ci at mi ci ci ci ci at mi c'est-à-dire que nga war a seetlu rek benn yoon génn say sarax nga toog jàpp noonu déedéet ñu bari seet daf leen a tëj puisque xale yu man sëriñ si dafa am fuñ juume mm-hmm. jamono ji ma wax la benn affaire seet gi gën a wér mm-hmm. dafa bokk ci seetuk chiffre fim mu ne man nag débat boobu bokk naa ci ñu ko gën a lancé mooy nit ko ci ban weer nga juddu nit ki liy ñëw ci yow nit ki fi nga tollu li ci nekk dafa gis nga làmmiñu nit est-ce que xam nga benn affaire fi mu ne ñu bari ñu ngi ñu ngi wuti sangatu cat fi mu ne boo doxoon ba gis nit ku tifli nga jël tiflit wi dem sangoo ko cat da lay bàyyi. Ah waaw tiflit xaax na ko tëf. nga jël ko nga jël ko yow bañ koo seexlu dem sangoo tiflit wi mais xoolal xeeti xam-xam yi kan moo la koy wax yow. te muy xam-xam bu wér boo xam ne boo ko defee mën ngaa fay ay million taal sa oto di wëri sëñ Mara pour dindi cat te yow cat yow yaa ngi ànd ak moom. yow man ngaa faj sa bopp man bu ma soxla woon alal loolu sëñ bi man bu ma man xam naa yoon wi gën a gaaw alal li koy maye jóg fajar di liggéey yi moo ci bokk na ci cinquième position xaw ma sixième. <laughs> mbaadu moo ci gën a. moo ci gën a sabab rek ngay def. mais alal dafa am lu koy joxe. pour mu gaaw daf ah waaw. Macky Sall ñi fi maase la woon am na ñoo xam ne tey jii mënuñoo am 1000 francs te ñu ngi ci dëkk bi. ndaw yi dañoo te yàlla mi koy jox ci benn yàllaa fi ne. mais ndaw yi dañoo war am waxal ci loolu. ci jaar ndaw ñi li tax mooy fi ne gis nga am na jaaro bu may liggéey boo xam ne képp ku ko am kenn du la dimbali. man wallaahi alxasim bu ma sañoon réew mi kenn du ne ma kaay ñaanal ma ndax ñëpp la seen ajo di faju waaye maa bëgg a dimbale nit ñi. te ndimbal googu li tax ma koy def séentuwuma ci ñoom seenu pay payuk suñ borom moom moo ma ci gënal te li tax ma lay seetal ba wax la say sarax dimbaliwu ma la yow kese de sa famille ak ñu topp ci sa ginnaaw laay dimbali. sëñ Mara nit est que mën na génne ay. man sénégalais yi cofeel giñ ma def ak fiñ ma teg ak man tey maay sëriñ boo xam ne man na maa yëkkati sama loxo ne kenn bañu ma. surtout ñi may jëflanteel ci wàllum liggéey. ñoo ma gën a bëgg. sëñ maanaam nit mën na génne ay sarax rek dem ay këyit yu muy lijjanti sotti maanaam ñu bëri wàllu këyit dañ ciy ñàkk ay millions yu bare bare baree baree bari te seen ay mbir du euh, sotti bokk nañ ci ñi ci xamante ne bi ñoo gën a nekk ay victimes ci ñenn ñi. waaw est que sarax mën na euh, yombal ay këyit yooyu dem di lijjanti ji. Euh, sarax. day guddal fan. Mm-hmm. day fànquk dee. te looloo gën a jafe ci sottil këyit am na ñoo xam ne bu ñu génnee sarax. Mm-hmm. waxuma la dem ci këyit dafa am sarax yoo xam ne boo ko defee. boo jàkkaarloog nit du la gàntal loolu dafa am am na sarax yoo xam ne nag boo ko defee da ngay tëje surtout tour deret gi ñu bari ay sëriñ leen lool dañu leen a rayloo ñu tuur deret seen mbir yàqu seenub say tas mënatuñoo am di am problème rek te nit kese kese bu def ay saraxam def li mu war a def problème warul am seex bi na leen oyofal yëf yi di je sonn naa. jërëjëf sëñ ba <laughs> sonnee dama lay bàyyi. waaw bàyyi ma ma jërëjëfati <laughs> may wax it nit ñi. Uh-huh. dee leen xam sëriñ si ngeen di jébbalu dem cib sëriñ jébbal ko sa bopp àdduna ak àllaaxira àddiye joo am jox ko ko loo xam wax ko ko bu dee taxawoon nga dee te boo deewee mu yàble fa mënulaa taxawu te nee na moom nga gëm àdduna ak àllaaxira te bis bi nga xam ne bu la fekkee ci kaw suuf sax du la ko teewal day yàble sëriñ si nañ amaat yërmande ci taaliba yi taalibe bi nga xam ne dafa yàgg ci kër gi yàlla juxu ko xéewal bu faatoo danga fay yabal kenn rek ku nekk ci ci ruq bi man de tiit naa ci jamono ñun gën a wóolu tey jii bu ñuy yor di ñëw ci ñoom mm-hmm. dañ ñuy teg ca kaw protocole bi day day day day kii lool waaye bu fekkente ne ñun suñ mbubb yu oyof yi mm. ñu jox suñ mille francs yeeg suñuy téeméer yi ne aslamtu naf ci ci seen yéen bu ñu deewee dee leen ñëw ci suñ dëj yi ba suñuy mbokk sax ma a xam ne kii de wax dëgg yàlla taxawul na ko ci biis bu mujj bi waaye bis boobu nga xam ne moom nga mujjee am te ñépp di yaakaar nga yable fa loolu dalutum xel sëñ Saaliw melutoon noonu sëñ Saaliw de ah man de xaw ma man de sëñ Saaliw bu ma saana xew moo koy taxaw te moo koy nëpp nëppal te moo koy defal lépp suturaal ko jébbal ko boroomam mhm. moo tax kenn ku ci nekk loo jëful ci sa bàmmeel doo ko fa fekk kenn defalul kenn dara kenn mënta yóbbu kenn àjjana billaahi wal kitaabi dëgg la nag sëriñ bu mat sëriñ day yóbbu ab taalibe ca àjjana waaye nag sëriñ bu mat sëriñ laa wax man waaye jamono jii ginnaaw ñun ñëpp ay euh, euh, oto yu rafet ak ay kër yu rafet la nit ñi di xëccoo ak ay jongama yow it jéem la tabax sa àdduna gii sa kërug bopp fexe sa julli yii jéem a tegu ci njub ba boo duggee ci suuf si xam la ngay fekk bu liggéeyal kenn muy tabax àddunaam ak yu doomam yow nga torox fii ci àdduna yow mal xiyaam nga torox tottati

yàlla nañu yàlla musal ci yaakaar ju tas. yàlla def sutura waaw. yaa ngi euh, euh, dem de mais wax dëgg yàlla <laughs> euh, lancé nga message naam bu am solo. boo xamante ne bi ñëpp a ngi ci bàyyi xel wax dëgg yàlla. donc damay fàttali rek balaa ngay dem ne ci numéro bi di 77 202. surtout 63 08 donc ci ngeen mën a. <laughs> jaaree quand même <laughs> même après dafa dafay dafay dafay dafay planqué rek juste après. ñu nekk Europe mën nañ ci message WhatsApp numéro am na WhatsApp. Ah, am na WhatsApp am na nga xamante ne bi jotuñu sëñ Mara nañu ko bàyyil message à tout moment quand même staff bi ñoo leen di rappeler mhm. pour wax leen ne leen sëriñ Mara ngi nii pour mhm. mu mën leen seetal mais mhm. une dernière question sëriñ bi mooy mooy Idrissa Seck nee na mooy chef de l'opposition noo noo gisee loolu xam nga fii kan nga mas a gis mu taxaw di xëccoo ne maay seefu opposition bi ku dul Idrissa ndax doonu ko mas ngaa gis sëñ Mountakha toog ne maay xalifa général Euh, mas ngaa gis sëñ Muntaxa toog ne mooy xalifa général. mosul am mooy xalifa Macky mas naa toog naan may président de la république. Macky mosul def loolu mooy président Idi ba mu ba mu ko doonee bu ne woon man la bu ne woon man la booba Idi mbiram day yàqu te moom Macky Sall dañuy yàqoo waaye fi mu ne Idi da koo doonut moo tax mu naan ñu moom laa waaye xam nañ ne moom du du du nekkul nekkul chef bi xam nga seef boo xam ne fi mu ne Idi bureau votam dañ ko faa gaje Thiès Sonko mi nga xam ne mooy chef de l'opposition bi nga xam ne moom tegu fi boppam yàllaa ko fi teg tey jii maire la gàddu leen ma jër ko mënuñ koy waxati topp leen ma jëru gàddu yat man Idriss seek ay waxam wax dëgg yàlla bu ma sañoon sa danga may laaj jeneen wax ndax Idi. sénégalais yi jë si waaye sëñ bi ñun nañ loolu man kay Idi wax dëgg yàlla man moom Idi de Seck wax dëgg yàlla bu ma koy xool dama ne la Idi jëratul muy def discours na tijji groupe bu whatsapp joxe numéro bi ci boppam daal ne ñi ma gëm ba tey nañ ma fekk ci groupe bi boo bëggee wax dara audio leen ko. Mm-hmm. macha allah mais journaliste yi nga xam ne nag ndeysaan am nañ jot ma sànni leenu xeer bu Idi wootee di leen ko wax Idi mu wax ñu Idi mooy kan nañ wax boppam. d'accord yow yow kan mooy Idi. man Idi man man man Idriss Seck xaw ma kuy Idi man. naa la ko kuy Idi. waaw man kon ma boo ma bëggee wax loo ku xamul boppam nu ma koy xamee man. sëñ Mara Idi bu nee la dafa weex. sëñ Mara nga <laughs> sëñ Mara